macha allah. tubaarkàlla macha allah gis ngeen ni ma duggee tey euh, xam ngeen ne ambiance la ñuy duggee ah 17h jot na nag 17h jotee da ngeen di jàkkaarloo sur la 2STV ànd ci Aïcha seen xarit seen doomu ndey xam ngeen ne nag su ma ko waxee rek mooy les vacances de ouf avec Aïcha on dit quoi ñun ñaa ngi naan waaw les vacances de ouf on dit quoi on dit quoi mooy les la même chose on dit quoi mooy avec Aïcha xam ngeen ne man lépp lu may def rek day daal di xaw a daal. mais xaw xaw a xaw a xaw a mbir mi day yëngu donc nag ñu defee ko les vacances de ouf mais on dit quoi là donc tout temps dama leen di lan ngeen wax maanaam lan ngeen di lan moo nekk seen programme journée lan moo nekk seen programme après midi ak si soirée bi ak lan nga xam ne moom ngeen def durant les vacances muy nag émission boo xam ne yéen a ko moom émission boo xam ne ndaanaan yee ko moom nee naa leen plateau bi plateau ndaanaan la li ngeen nag euh, dégg ci fii ñëw fi nga xam ne moom mooy plateau Aïcha les vacances de ouf ma ànd ceeg nag ndaanaan bu mag ànd ceeg koo xam ne defe naa ne yéen a ko gis muy clip bi mu ngi daw euh, kooku kenn dootu ko présenté ñu ko naan euh, mère Ndickou Thioub mère Ndickou Thioub nuyu nañ la. waaw Bébé Jalle maa lay kontaan naa ci teew gi tey. yal na yàlla kontaan. a ah mel ni ku nag tey mbokk téléspectateur yi ne naa leen euh, tubaab fakar la macha allah fii moom commencement bi lay xaw a kii nii rek waaye su ma tàngee rek la su ma tàngee rek mbir day daal di explosé yéen pare leen ana borom sër ana borom bàyyi ani ngeen ana ndaanaan yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog ñun ana grande dame yi nga xam ne dañoo bëgg lu baax di jàkkaarloog la 2STV yi di déglu nag plateau bi di déglu waxtaan bi tey nag dañuy def yi fu ndaanaan tey le jeudi ñu ngi nem ci fin de semaine alors dañoo indi mère ku Thioub ñu fas yéene waxtaan ak moom waxu ndaanaan fas yéene jëflante ak moom jëfu ndaanaan def nag tempo bu neex tey moom dañ koy def tempo rek feccu ndaanaan lañ koy def damaa bëgg nag ñuy battre battre googu nag dama koy def en direct maanaam yéen yi nga xam ne yéen a ngi woote damaa bëgg ngeen dugg te battre ma nag li xew fii battre gi il faut am donc da dugg mer bi di way ngeen di battre waaye loolu loolu loolu baaxul waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Mohamed Aïcha maa lay nuyu mm-hmm. buri sin buri ñilaan buri bar sin maam Banda Mbayaan yow gell war nga déggal li ah. Ah. maam yaa nga siin maam yaa nga jaxaaw maa ngi nuyu na borom réew mi Macky Sall mm-hmm. di nuyu a Marème Faye Sall di nuyu Alaaji Ndiaye mm-hmm. ak Marème Ndiaye dëgg la barki démb rek tubaarkàlla macha allah bi ñu ko tuddee làmb Iba Mar dafa ñëw dafa ma yónnee xaalis bu bari jox ko Mbaye jabaru Bekaay mbay dëgg la may kontaan ci loolu di la ñaanal nag gudd fan ak yokk ba yëg ko amiin amiin yaay di ñaanal sama doomi góor yi Pam mhm. Ndiaye ak ñi mu àndal mhm. ñaanal sama rak sama xarit Ami Ngom Ami Ngom tey ah, Ami Ngom nga àndal moom moo lay aw borom bari Ami nañ la tamit tuuti ah nuyu nañ la kontaan yow ci teewaay bi nga xam ne ànd nga ko ak euh, yaay Niku mhm. fas yéene nag def lu am solo mbokk téléspectateur ànd ak ñi nga xam ne ne mooy turubam ah, yéen noonu tudd yëpp Papa Ndiaye Tamba déggal lii nguuda Cheikh Ndioga ah, waaw alors gis ngeen xam ngeen ne euh, plateau bi moom day faral di tàng euh, température bi di yéeg mais tey dañ koy def yëfu ndaanaan dañ koy def yëfu tempo ndax tey euh, jeudi la te xam ngeen ne jeudi guddi àjjuma la donc nag xam ngeen ne ne macha allah ndaanaa ni fi mu ne ku nekk toog nga jàkkaarloog la 2STV la 2STV ndaanaan rek ko koy seetaan ah? muy xale muy mag jëpp ay ndaanaan la ñu donc mi ngi noonu kon nag tey euh, mendiku la ñu euh, invité donc téléphone yi aussi ubbeeku na maanaam di ngeen ko gis ñu affiché ko au bas de l'écran ngeen mën a woote yéen a dugg waxtaan waxtaanu ndaanaan waxtaan waxtaanu addina waxtaan waxtaanu actualité ñu waxtaan nag li nga xam ne ne moom mooy aar bi mais ndiku euh, damay bàyyi nga nuyoo ci way parce que fii dafa am ñaari nuyoo. Mhm. dafa am sa nuyoo bi ngay nuyoo. ak nuyoo bi nga xam ne nag moom laa bëgg. layoo bi jee. riche na tubaarkàlla macha allah def nañ nuyooyu naay naan def nañ nag nuyoo teranga nag ñi nuyoo euh, defe naa kuñ ko nuyu rek war nga nuyoo gi war nga koo yëg daal waaw war nga koo yëg ci sa biir xol war nga koo yëg ci biir xel yi yaram yi war naa daw macha allah mel ni ku nag tubaarkàlla macha allah euh, ñu ràññee la ci li nga xam ne moom mooy làmb ji dëgg la dëgg la ah làmb ji nag euh, vraiment defe naa ne kuy seetaan làmb kuy amateuru làmb xàmmee na sa baat ràññee na sa baat am na ñoo xam ne sa xëy na xàmmewuñ sa kanam waaye soo yuuxoo seen xel dem identité bi làmb ji ma nekk. lan moo la dugal ci làmb. waaw lii nga ma laaj euh, Diouf kontaan naa ci. Mhm. que sama yaay bu may dugal ci làmb ji booba 17 ans laa am. Mhm. sa yaay mooy Ajaratu Ndey Ngom Bambilor mhm. dem ma fenn bugguma fen toog di ko jàppale tubaarkalla macha allah. ba Gaston Mbengue tëggal ko mu jubilé. ndeysaan. di ko jàppale di ko jàppale di ko jàppale ba Gaston tëggal ko jubilé macha allah tëggal ko lamb ju rëy décoré ko nag. Mhm, sama papa Gaston menum Gaston rek laa gis mu décoré sama yaay ci lamb ji. ndeysaan Gaston ba dafa moom amul lu mu defalu sama yaay ci lamb ji. Mhm. Mhm. ba sama yaay bi may jox leen ngay la macha allah. ñoom ngañ jaañ ak bu ñu xob baay Lamine Thiam dogo la macha allah ñëpp ngi taxaw. mi la ma jox naa la leen ma toog ci làmb ji nag. dëgg la maa ngi ci làmb ji toog. ci kàttanu yàlla mais teewu nag maa ngi liggéey leneen. yaa ngi liggéey leneen. parce que maa ngi jëm mag. parce que ñun dañ lay gis ci scène musicale scène musicale bi nii naan yaa ngi ci tamit. Euh, ci xam ne nekkul sa kër yaa ngi yor sa téléphone waaye yaa ngi yor sa tablette. wala sa ordinateur di ci seetaan 2STV en direct. à ñi nga xam ne ñu ngi toog seen i salle ak seen i ëtt di seetaan. Mm-hmm. ñoom nag nee nañu lu tax maanaam comme euh, yeneen ndaanaan yu jigéen yi nga xam ne ne euh, dañ ciy way yow su suñu gisee ci làmb ji xëy ñoom daal xamuñu fan ngay ne feneen parce que dañuy bëgg di béggee mhm. di bëgg di la déglu ah di la consommer nag mais vraiment nee nañu gisuñu fenn foo nekk fi ñu la mën a fekk bàyyi naa ko loxo Diouf ah da ngaa def naa la ménagère bés ni ki tey tàccu leen loolu ah tàccu leen alhamdulilah rabbil alamin def naa la bis ñu ngi tey ménagère. ah kon yaay ma tontu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bind kan danga ma def ménagère. barki Sëriñ Fallou. ah Laye Sarr ah, Tim Bongo ah doon naa ménagère <laughs> doon naa ménagère faa ma ménagère sama yaay. ku ma soxla na ku ma soxla na jaar ci yow. ku ma soxla na jaar ci man. waaw jox def naa la ko bes ñu ngi tey. ku ñu soxla te yal na lii ma la def tey tabb la ko. waaw balay yàgg yal na nga ma woo ndiku am naa jëkkër. ci ah, barki alxuraan amiin yaa rabbi allahumma amiin yaa rabbi te yàlla nga ci yokk ba yëg ko amiin def naa la ko bis ni ko tey musuma ménager ah yaay sa ménager alhamdulilah rabbi alamin dégg ngeen li nga xam ne la moom la yaay ndiku nag daal di def fii ah daal moom de daal wax na daal nee na tubarkàlla wóolu nañu wóolu na 2STV wóolu na Tim Bongo ba lépp loo xam ne ne bëgg nañ ko ci moom rek na fa jaar ci ñun kon loolu cër googu dara gënu koo rëy yàlla yal na yàlla fay ndax nag jox confiance ay ndaw ndax ñun defe naa ay xale lañu ah ay xale lañu dañuy jéem rek ah di bokk ak yéen plateau ndax nag bokk ak yéen plateau xam nga tax yombul yaay. ndax li faafa wax sànq. nee nañu amoo leen cent waaye def ngeen cent kër. faafa Gueye ko wax léegi sama góor boobu noonu. nee na yéen amoo leen santa ans mais def ngeen cent kër. wallaay wax na dëgg xam ngeen àddina. wallaay wax xam ngeen li am ci àddina xam ngeen li xew ci àddina. donc yéen bokk ak yéen plateau di wax ak yéen faaw ñu xool ko ndax liñ fiy wax faa mu ndax su wóorut am ngeen euh, France da ngeen France boo xam ne da ngay wax carrément li ngay wax ni voilà donc mu ngi noonu donc nag kontaan nañ bu baax ci loolu nga wax nii alors il faut que kon loolu euh, groupe euh, Team Bongo faaw ngeen di nag ay affaires yoo xam ne ay ay ay soirée privée wala boog ay ngonalu privé yoo xam ne dañ koy defal suñu yaay ndiku ah consommateurs yi mën di consommer ñi seetaan mën di consommer aussi ndaanaan yi nga xam ne ne femmes yi nga xam ne dañuy bëgg di di la déglu di la consommer ñoom it ñuy mën di xam fu ñu la fekk ngir waxtaan ak yow ci loolu dama bëgg nag ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy différence way yow dama bëgg parce que dañu gis ne euh, waykat yi dañuy wayee ci timbre bu ne yow fan ak fan nga mën a wayee fan ak fan nga mën a wayee man de ñoo ko bàyyi sàmba foo ma coupé ma fay la fa hmm? barki Mouhamed ah yaay dafa mel dama la dégg sànq ci régie bi yaa ngi am euh, loo doon def waaw ngay ngay am looy wooy wax ci suuf sama mag ji maa ngi koy maa ngi koy ñaanal yàlla hmm. yokku leeram El Hadj Ndiouga su ma yeboonee artistes yëpp man maa si njëkk a yéeg suuf seen orchestre way. Hmm? boo mi ngalam. ngalam bi nekk point E. El Hadj Ndiogou bu Moussa Pouce. xam hmm. naa Wade ma seer kaay nga yéeg way ah Wade ma seer la ma doon woowee d' accord posé na ma Wade ma seer. Hmm. nga yéeg way. ndeysaan. man Aïcha barke Serigne Fall dama dama dama teel a way. dëgg la. waaye nag heureusement. aar amul âge. way amul âge. yàlla lu la jox rek jëlal. dëgg la te ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla xam nañ nag waykat wanta mhm. wantana mbeera ma de maa ko sant def ko olof. waaw naa mel loolu laa doon dégg ngay way sànq wantana mbeera. wantana mbeera. waaw ayca. kenn mënu ko changé. ayca defal ñu wantana mbeera. <laughs> déggal ma ah waxoon naa leen tey ndaanaan lay ñëw de. jaam gëmal yàlla yow jaam bi yow gëmal yàlla. yaay baal ma wane ndax maa ngi campagne campagne yu rëy fii del ma def sama yaay ndax yaa ngi may dugal ci gaam ndax ma damay tàkk man essence man daal essence laa su ma tàkkee rek dootuñu bàyyi walaay walaay naa nag damay dem ndax nag lii day féexal sama xol dëgg la xam ngeen ne man lu féexal sama xol dafay yomb maanaam man su nit ñi kontaanee nit ñi bëggee di way lu neex di waxtaan waxtaan bu am solo damay kontaan loolu mooy sa jikko yow noonu nga mel dafa rafet te xam naa ne yaay sama xol ni mu féexee noonu la mbokk téléspectateurs yi seen xol féex loolu nag damaa bëgg ñu dugg nag ci téléphones yi mën a waxtaan ak ñun laay ngeen daal di ubbi téléphone yi mbokk téléspectateurs yi dugg ndax xam naa ne instant bii ah tubaarkàlla nag euh, ñëpp seen xol féex na dañuy war a waxtaan ak ki nga xam ne ne moom mooy Yaye Ndickou ah, ñu dugg si aussi saafantoog moom ñi ko namoon ay fansam daal di waxtaan ak moom ñi nga xam ne aussi euh, dañoo bëgg émission bi ñoom ñu daal di dugg wax ci si nga xam ne ne mooy seen xalaat ah, parce que émission bi yéen ko moom keneen moom a ko ñun dañ fee nekk bëggal leen ah alors Yaye euh, nag tubaar fa kàlla allah nga mën woy lool nag du ñu lu ñu ndax làmb ji euh, xam nañ ne euh, sport la boo xam ne c'est international. wallaay làmb ji. benn élément gën ko riche ñëpp benn élément gën ko riche nag. benn élément gën ko riche comme ko waxee. mooy sama milieu. mooy sa milieu nga maîtriser ko lool nekk ci mais yan difficulté ngeen di am ci biir làmb ji ndax nag làmb ji dafa bëri dafa bëri euh, yëf maanaam am na mbër yi nga mbër yi nga xam ne ñoom ñooy bëri dañ caa bokk. am na amateur yi nga xam ne mooy fans club yeeg fan yi ñoom ñoo fay nekk am na euh, li nga xam ne moom mooy média bi maanaam télévision yeeg rajo yeeg journaux yeeg yëpp dañuy ñëw am nañ aussi ñoo xam ne ne tubaab tubaarfakal la yow euh, dañuy bëggee li nga xam ne moom ngeen def mooy way yi dëgg la dëgg la mais dama bëgg nag parce que làmb ji am na mystique yaay mm-hmm. mystique bi barkalla xam nañ ne bokk nañ ci li nga xam ne moo gën a fës ci làmb mm-hmm. donc du loo xam dañ koy nëbb sax ndax dafa am sax partie mystique ndax damay si naan sama papa El Hadj Bakaay Mbay suy wane biir Batamba damay gis sax partie boo xam ne ne ci mystique rek la ñuy wax kon loolu moom daf na fës na dama bëgg nag nga wax ñu tey lan mooy problème yi ngeen di jànkonteel yéen waykat yi euh, euh, ci biir làmb ji parce que nag ci ngeen bokk waaw mm. làmb ku ne xam ne ne dafa bari mystique mm-hmm. mystique la commencement ba fin moo dem ku nekk rek uh-huh. da nga fexe ba la macha allah yóbbaale jàpp te am ñaanu waajur. dëgg la heureusement ka ma fa teg daf ma ñaanal. ndeysaan nee na ma loo fekk foofu mu nga war a toog. Mm-hmm. loo xam ne dafa jaaxal falangal toog dara du fa dat jot. Mm-hmm. ndax sama yaay moo ma fa bàyyi. mais làmb làmb risque la. risque la de ah, yaay est-ce que nga ñëw làmb war a way sa baat taxaw. parce que mos nga am yooyu problème. waaw problème boobu nag ci kàttanu yàlla mosuma ko am. mosoo ñëw sentir sa bopp nekkoo nga mel ni ku feebar ah, yow <laughs> Badou Patou Seye. li ñu dama koy tëdd ba guddi gis ko. ndeysaan ñu ne ma génnee sarax bi ma génne ko ñëw toog te jàpp sama jàmbur. d'accord kon yow da nga sarax moo tax du ma kenn lu metti mhm. te ku ma ko yéene tamit da koy gis parce que man du yéene kenn lu metti man ñëpp laa bëgg dañoo genn wàll gi xale yoo ñëw ca làmb ga ñëpp genn wàll gi maa leen fa dugal am na solo am na solo làmb nag ku ne xam ne am risque la waaw risque la moom barka la am naa fa sama nit ñu baax mm-hmm. maa ngi nuyu promoteur yi mm-hmm. di nuyu communicateur traditionnel yi mm-hmm. di nuyu xale yi fa nekk di nuyu nag sama samay doom yoo xam ne jeune promoteur lañ tudd eh waay mais xale yu baax a ngi noonu. barkalla macha allah. di nuyu tëggkat ñoom Assane ñoom ñëpp maa leen di nuyu. dëgg la waaw mu ngi noonu kon nag gis ngeen li nga xam ne moom la yaay yëkkati sànq donc nag ñu ngi nuyu waa Géejawaay bu baax a baax a baax ñu ngi nuyu ki nga xam ne moom mooy Ndey Badji Ndey Badji donc kooku joolaa la ñu lay may dédicace bi woy bi nga xam ne ne yaay def na ko moom nag ma nga foofu ca caaro yi ah ca boutique Bamba donc ñu ngi ñuy seetaan ñoom ñëpp Ndey Badji ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di wax ne na may nañ la woy bi euh, que koo xam ne ne aussi caaro yi ah, femme yi fa nekk ah, mère Soxna Fall ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ca caaro yi ki nga xam ne ne aussi moom mooy Aminata Diallo Diallo ñu ngi lay nuyu foofu ca Caaroy cinéma donc waa Caaroy yëpp fi ne génn nañu ah seen xol féex na nee nañ nag taal nañ télé bi mu ngi nii moom lañ bind taal nañ télé ñu ngi jàkkaarloo 2STV ñu ngi lay déglu nag ñu ngi moom a am problème mais ñu ngi jéem a dugg donc jéem leen essayer leen ngeen composé numéro bi numéro baa ngi noonu affiché au bas de l'écran ngeen dugg waxtaan ak ñun waxtaan ak men di ko mu ngi leen di xaar lépp loo leen ko bëgg a laaj loo xam ne gën ngeen koo gis wala boog bëgg ngeen ko dee leen jaar ci man la nag dama xaw a tàng li may laaj dafay bari waaw Aïcha mère dama laaj dafa bari ginnaaw bi sant yàlla maa ngi ñaanal nag sama doom ju góor ñi moom moo jeen di ay rakam moom mm-hmm. moo di ñaanal Youssou maa jigéen mi ko jàppale dëgg la moom moo jeen lan ngeen lan ngeen lan ngeen bokk lan nga moo jeen njugo jeen mi ko jur mm-hmm. ñoo bokk ndey ndey ngoom moo nu jur ah d'accord yaayam tam baax lool mm-hmm. awa jaaw a fay dëgg la barkàlla macha allah maa ngi ñaanal moom di ñaanal ay rakam ñi muy woyandool ñiy way mhm. ñoom ñëpp maa leen di ñaanal ñoom ñëpp yaa leen di ñaanal Pape Malick Diak ñoom ñëpp maa leen di ñaanal yàlla def jàmm ci seen programme bi ñu am Youssuma jigéen tamit ñu koy ñaan di ko gërëm mhm. ndax moom jooyul bàyyi de te nag waaye nag jëng ko dugal war na mën a am nag mhm. nit baax ku mel ni Youssou parce que dafa yaru ndeysaan yàlla yeggale lii muy mébét ci kàttanu yàlla yal ko yàlla yeggal tam ba am benn fakkas maa ngi ñaan borom fukki pe penc yeeg ñaar barki de maa ngi gis ndeysaan Youssou Ndour di Youssou di ko ñaanal ma ne ko lii war na mm-hmm. di nuyu nag amadu Gueye mm-hmm. bi ñu ko tëddee hôpital mm-hmm. Amadou Gueye toogul këram dëgg la guddeeg bëccëg mi ngi ñëw di seet njuga jabaram ju baax jooju ñoom ñëpp maa leen di jaale El njuga incha allah dinañ xam nag bu samedi ak jàmm yëf na mel xam na dagam bàjjënay bàyyi yal na leer naañ <laughs> mu ngi noonu xam ne doomam ñëw na donc ñu ngi leen di ñaanal xam ne ñu ngi ko am alors dama bëgg aussi nga ne moom mooy euh, musique bi musique yaa ngi dugg sa doom juga euh, di sa sa doom euh, Momo Momo Momo mhm. Dieng mhm. donc dama bëgg ñu ñëw aussi ci musique bi mhm. parce que Momo bokk na ci ñi nga xam ne ci révélation de la lañu bokk maa ngi fàtte tuuti sax am na samay doom tam yu nekk Banjul ñu leen di wax Fafa ak Abu ah Fafa ak Abu waaw ñoom suñu nit lañu. maak seen yaay bokk ndey baay. ah yow yaay foofu ne nga bokk di. maak seen yaay ñoo bokk ndey baay. seen yaay moo topp si man. kon da ngaa bokk Gàmbi yow maak seen yaay bokk ndey baay aji wala cuun. <laughs> waaw loolu moom xam naa loolu dañ koy teg. di nuyu Fatim Gàmbi dañ fa dem léegi nii

am xam-xam bu yàlla def ci yéen ci musique mhm. léegi nag dama bëgg comme xale yi ñu ngi seetaan mhm. euh, jeune talent yaa ngi seetaan mhm. way ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a way ñu ngi seetaan ñi topp seen i ginnaaw ñu ngi seetaan donc dama bëgg aussi nga jox ñu ay conseils ci euh, musique ci bi est-ce que am na yu ñu ah, na paroles euh, ci loo xam na la ci ak ak la ci. tubarkalla macha allah xale yaa ngi ciy góorgóorlu nag. ñu ciy góorgóorlu bu baax de. mais tamit. li xaar mbay naa déggatunu mbaar déggatunu mbëfër des na nag tuuti des na waaw mais ñu ngi ciy góorgóorlu ci man côté yaay yaay il faut ñu wax il faut ñu wax affaire bi leer xam nga fii vacance de ouf la dañuy wax lu ñu neex wax dëgg la barke sëñ Fall wax fii dañuy wax lu ñu neex dag maa laaj dinaa wax wax ma wax ma lan moo moo moo la ñu moo des ñu xale yi mottali ko ni mu gën a gaawee tax ma damaa bëgg artistes yi sénégalais yi di dem nag fépp waa ah. waaw dëgg la di dem fépp nag dëgg la wane fépp nag dëgg la fu ñu woo ndaanaan yu mag ñu waaw ñu ndax xale yi ci la dañoo am talent léegi nag wax ñu li nga xam ne yow sa xalaat bu gàtt euh, moo des waaw fii na fii deux mooy li ma la wax rek li ma la wax xale yi ñu ngi ciy góorgóorlu mhm. waaye tamit da xaw da na des tuuti rek ci ban côté nga ma mën a expliquer ah, moderne bi ci moderne bi waaw hmm. waaye ku mel ni la ku mel ni kii te mu dëkk ndar te mën a woy rek Abdou Guité Seck Abdou Guité waaw barki dem dégg naa mu génn lu neex loo xam ne hmm? xale boobu moo mën a way Abdou Guité Seck barki sëriñ Fall kon daa roykaay la Abdou Guité Youssou moom waxaale wu ma ko moom hmm. Hmm. déedéet moom mag la man Pape Diouf macha allah waaw ñooñu macha allah sama xel dal na daal ñooñu ay ndaanaan lañ sama xale yi maanaam ku nga xam ne ne aussi bëgg na yaay ndiku ah, laaj ko yaay ndiku la nga gisee sama kaset bi ndax dafay baax euh, xale yi ndaw xale yi léegi maanaam suma génération bi nga xam ne ñu ngi soog a door di génn ay kaset mhm. di bëgg a way dafay baax nga rapproché wu ci mag yi traditionnel yi ndax ñoom xam nañ tempo xam nañ musique nga ñëw tegal ko sa kaset wala nga tegal ko sa single ne yaay déglu lii wala bàyyi déglul lii loo ci wax boobaa dina la wax ne lii baax na dindi ci lii teg a cee yokk lii donc defe naa ne loolu am na solo ñuy waxtaan ak mag yi dina changer lu bëri ci su lu ñu bëgg-bëgg alors yaay ñu laalaat dara ndax fi mu ne nag <laughs> waa waa waa daal fi mu ne engagé nañ la waa Caaroy engagé nañ la fi waaw waaw engagé nañ la nañ dañ la bëgg a teral en direct te tooñ la jaboot du seetaan Tambaya laa bëgg ngeen yëkkatiwaat. Ah. ngeen wan ma seen mën. waaw waaw waaw wan ma seen mën wan ma li <laughs> macha allah loolu nag dama koy may mbokku téléspectateur yi parce que nag yaay mbokku téléspectateur yi kenn amul fay. ndax lépp lu ñuy def su 17h jotee dañ koy daal di arrêté. daal di jàkkaarloog li nga xam ne mooy la 2STV. jàkkaarloog les vacances de ouf avec Aïcha. nee nañu Omaro monsieur Abedio danaan ay see ma ne ko ah mu ne ma euh, mbokku téléspectateur ak ñun lenn leen moo leen séparé muy touche bi. barke yonent bi touche bi nag ku ko nee tapit nga mm-hmm. changé. wallaahi waaye yàlla dafa def ñun lañ bëgg ñun la ñuy seetaan. ayca ñu daal di jël ki nga xam ne moom moo nekk ci ligne bi allo allo. allo oui. waaw soxna si nuyu nañ la maa ngay apaat. fay noo def. ça va tur bi naka la ak fu ñuy woowee ñu bàyyi la ak suñu yaay. maa ngi tudd madame Ita Saay Daado Jara. mami. Oh. madame Ita Saay Daado Jara. ayca ma oh, Jara. ni ko ci woon ci bébé joli maa ngi nii rek. bébé joli ngi fi. maa ngi nii rek jërë ak ak jàmm. ça va ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax jërë maa ngi sant yàlla. ay ah, Aïssa yow ku baax nga invité. Ah, kontaan nañu jërëjëf kontaan nañu. ah da ngaa baax ni ko. jërëjëf dama laa gis rek na xaaral ma woo kontaan naa trop kontaan naa. ah ñoo la gën a kontaan. kontaan naa barki Demba Ndiaye rek ma ak yow. a ah, yow yaa baax. Fass Mbao ñu lay ngénte tubarkaal la nga nekk nag nit ku baax. ah yaa ma gën baax bëgg sa jëkkër bëgg góor gi jóob. bëgg sey goro ñi ñëpp la gërëm kontaan naa jara merci beaucoup kontaan naa. maa la gën a kontaan naa. ah defe naa ne mbokk téléspectateurs yi commencé nañ kontaan nañ bu baax euh, madame Yatassay ah, damay profité waal nag di nuyu waa Mali ndax su waxee Yatassay sama xel day dem ci Mali ndax nag dafa am fam Yatassay boo xam ne tubaar fakala sama nit la ñu dañuy seetaan télé bi tout le temps di nuyu ki nga xam ne ne mooy euh, madame Kumba kooku nag Kumba Soya lañ koy wax Kumba Soya Bathily maa ngi lay nuyu bu baax baax foofu ca Mali ah, di ñu nag ci Faladje quartier Faladje la nekk di ñu seetaan chaque jour ah waa waa Mali moom defe naa ne dañoo bëgg 2STV yi di nuyu nag famille Yatassay bi nekk foofu foofu ca Bamako Sonko di leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu nag euh, ki nga xam ne moom mooy Xabi Yatasaay Xabi moom it ci famille Yatasaay googu la bokk waaye ñoom ñu ngi fii biir Sénégal donc di nuyu di di di gën jaale dëgg la voilà voilà donc Aïssé mi ngi noonu donc Aïssé ñu ngi koy jaale bu baax a baax sama turandoo la moom lañ ma doon nuroo waale sax ndeysaan waaw yàlla yërëm ko nag yàlla xare ko àjjana donc di nuyu famille Yatasaay boobu yëpp nag a ah, di kontaan ci ñoom bu baax a baax a baax Aïcha allo allo allo oui noo def. ça va naka la fan nga ñu woowee. maa ngi leen di jóg Thiaré. ñu bàyyi la ak sunu yaay Ndiku. da ngay yokk baat bu ah, tuuti ah naa kontaan ci kaw. ah waaw waaw waaw waaw la noonu la dangeen di yokk baat bi tuuti rek yaay mën leen dégg ah donc téléphone bi ubbi nañ ko mën ngeen dugg waa le plus vite possible wax ak yaay ndiku bu baax a baax a baax du nuyu waa HLM waa Fass bu baax ñoom nee nañ ñu ngi seetaan émission bi ah, ñu ngi ciy seetaan di kontaan nag ah, suñu la dégloo ah, waa Fass nee nañ suñu dégloo sa way seen xol bi day feex parce que leen yóbbu ci làmb ji waa Géejawaay aussi waa Pikine ñoom ñëpp ñu ngi bind fi mu ne kuy amateuru làmb rek sa xol feex na yaay waaw sa xol feex na Père moom xol bi feex na waaw ndax mooy suñu kilifa fii ci 2STV bi <laughs> dëgg la. Pape Modou Pape Modou moom mooy générateur groupe Tim Tim Bongo. Eh, mhm. dëgg la. waaw dañoo ñàkk ñaan. dëgg la. bàyyi sa fi bi doon takk barki dem moo Ndiaye rek chéri Awa Cheikh. dëgg la maa leen di nuyu ñoom ñëpp. dëgg la barki dem rek ñoo tourné sama clip. ba ñoom ñii. waaw waaw kan Bruno. Bruno. kon encaissé nga. waaw waaw Bruno. kon tubaabakala macha allah euh, Bruno tubaabakala sama xama xol féex na sama xol sedd na ba nga encaissé mënoon nga maa yëgal ndax yaay weer na la en direct léegi nag tubaabakala suñu paree ñu daal di gisee ndànk rek du dëgg bàyyi leen ni ngeen def da leen encaissé di ma jox bàyyi leen ni ngeen def yaay ku la la ci tournalee crime nag ma woo ne ma diw tourné na ma. jeex na tàkk ndax nag. dañ ma ah, leen a fi nekkee ah, ñimeetu fi nekkee ñimeetu maa dugg loo yëgul. <laughs> waa Aïcha maa ngi profité di nuyu sama taawu ndey bi tam aji Penda Dieng. Mhm. ci bari ñi moom moo topp ci njuga. moo topp ci maa leen di nuyu ñoom ñëpp moom mooy sunu yaay moom lañ dese. Mhm. kàcc ko dégg di ko ñaanal nag gudd fan ak wér. ndeysaan. Mhm. yaayu Cheikh. yaayu Pam Malick ci néegu Amérique. Paate Faye. ñoom Mor Diop. dëgg la di nuyu nag tubarkalla Fatim Thioune ma Nia. Mm-hmm. chéri chéri jojo mu ndaw. chéri jojo mu ndaw di nuyu Fatim ca Banjul Amet Thioune. Mm-hmm. ñoom ñëpp maa leen di nuyu. Oumy euh, Laay yaayu ma mbay. sànq ba léegi yaa ngi nuyoo Banjul. ak naatu Diagne nañu jël nañu jël euh, li ki ci ligne bi ñu doog a nuyoo ca Banjul alo allo. allo oui soxna Aïcha. waaw soxna si na def. maa ngi sant yàlla bu baax ziar naa la baax a baax. sa sa dugg neex na ma sa dugg am na am na feros na feros na neex na ma neex na ma. Ndeye la. Ah, mooy borom marché yaa wuyul yaa wuyul maa ngi nuyu sama yaay jooju waaw yaay booy nuyu naa la. maa lay fay ñu ngi maa lay fay bu baax maa lay fay. yaay booy guddal fan yàlla na yàlla yokk sa fan. amin amin amin amin kontaan nañ ci émission bi neex na rafet na macha allah. amin amin amin. jërëjëf. Ah, li def rafet na lépp dégg naa woy bi kontaan naa trop trop trop yaa ngi koy yow mu dund doyoo. ma ne ko yow yëpp laa ko def musóor yëpp yaa ko def clip beeg yëpp yaa yaa ko musóor. Ah, yaa yow yaa baax rek. madame Diouf. ah kooku madame Diouf yaa baax yaa am ngor. yaa mën a encouragé nit. jërëjëf jërëjëf ñi yaa yow ci lu baax rek ngay dox yal na la yàlla defal teranga amin amin amin yal na la yàlla fay amin madame Diouf amin waaw soxna Aïssa na dama bëgg sama yaay jooj ngeen jàppal ma ko bàyyi nga ne ma la ngeen mooy ménager te ngeen boole ko gars yi nag nañ ko dimbale nañ ko jàppale nag. bàyyi na ne nga xam ne ndaanaan la. madame Diouf. waaw. yow sama doomu baay nga sa jëkkër sama doomu baay la. waaw ah. dëgg la ay sa dëgg la kon man sa njëkkee laa. dëgg la dëgg la sama njëkkee nga. jeex na. kon nag xam nga ne sama yaay yi moom duggee ci man moom la mbir mi fuusaa. jeex na loolu mooy. sëñ Touba am na sëñ Fallou. jeex na te ñun am. <laughs> kon jeex na kon dénk naa la ko. du wax na ngeen wax gars yi nañ ko jàppale te xam ne ndaanaan la nag. incha allah incha allah ndaanaan la ku ko jàppale jàppale ndaanaan. dëgg la dëgg la tonton El Hadj Ndiaye moom tam ñu ngi koy ñaan moom tam mu jàpp si. amiin amiin amiin gis nañ li ñuy def ci réew mi macha allah. 2STV ca kaw ca kanam ci lu baax incha allah yi allahumma amiin allahumma amiin amiin yàlla dina ko def ndax yéen a ngi jàppale askan wi. allahumma amiin yaa rabbi amiin na ko yàlla def yal yàlla def xéewal. amiin amiin yaa rabbi amiin. moom andi nag moom kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf kontaan nañ kontaan sama yaay la kenn gënu la kontaan nañ bu baax fi mu ne nag euh, émission bi nag instant bi moom jeex na waaye nag damay profiter de l'occasion ndax sànq ba léegi yaay yaa ngi nuyu waa Gambie Omaro mhm. mu Cheikh Béthio xam ne maa nga nekk ca Gambie di mhm. waajal li nga xam ne ne moom mooy cantam gu rëy foofu ca hôtel Paradise mhm. nekk nag euh, foofu le 5 samedi gi maanaam le cinq août bi maanaam samedi lay lay am à partir de 17h maanaam lay commencé 5h lay commencé maanaam ku ñëw ku ku teelul ñëw rek di nga ñàkk di nga ñàkk numéro téléphone bi nga xam ne ku bëgg billet ci ngay wootee mooy foofu ca Gambia numéro téléphone bi nag plus 220 la. 325. 09 04 plus 220. 325 09 04 mooy numéro bi nga xam ne foofu ca Gambia soo leen fa wootee incha allah dinañ leen indi billet yi ba seen kër ngeen mën a dem fekkee Omaro mu Cheikh Béthio mu sant Serigne Saliou mu sant Serigne Touba ndax nag defe naa ne Bamba yi moom fu ñu wootee rek ñëpp la ñoo war a wuyu kon nag man maa nga fa su ma jógee fi yaay damay jël oto ndànk rek raam dem Gambie. ku ñàkk ki ñaan la maa ngi nii laa demee Gambie yëre gi laa demee Gambie. ku ñàkk ki ñaan la Omar nii laa demee Gambie fekk ji Omaro maak moom ñu wàcce Gambie ànd ceeg Fafa Gueye ñun ñaandu ñun ñëpp ñu wàcc Gambie kon nag waa Gambie xaar leen ñu suba incha allah samedi 17h ca hôtel Paradise yaay tàggul vite fait. incha allah waaw. ñu génne maa ngi tàggu Sénégal gépp ñu génne ñu tàggoo Sénégal xam ne bi ñu sant yàlla julli mm-hmm. Seydina Mohamed mm-hmm. léegi ñu ngi tàggoo nag. waaw kontaan émission bi jeex na. émission bi jeex na. léegi na Sénégal gépp xam na nag. waaw sans ménagère ngi nii. ah jeex na jeex na. sans ménagère ngi nii. <laughs> muy noonu maa ngi nuyu ñëpp. di sant mhm. ñëpp di gërëm ñëpp. di mhm. nuyu ak lu làmb nuyu ñëpp seen fante ñëpp maa leen di nuyu. di jox ñëpp rendez nag samedi nag. grand théâtre grand théâtre ca Momo Dieng. ayca yéegalal yéegalal dabar tëjale ah. dara waaw. kon wow yaay booy yaa ma woy wee. waaye